droit ak euh, Maymouna immunité euh, parlementaire nga ñuy nga ñuy tojal. voilà Pape Cheikh immunité parlementaire muy nekk terme boo xamante ni dañ koy dégg lu bëri. Mm. nit yi naan dañ koy lever wala duñ ko lever mais balaa ñu si waxtaan comme li ñuy def saa su ne. Mm. seeti nañ koo xamante ni xam-xamam da cee màcc. waaw waaw ah nga ma xam. <laughs> ñu déglu ko. <laughs> déglu ko expliqué nañu Pape Cheikh moo ci nekk kan euh, kañ lañ ko mun a wax nan lañ koy dindee éventuellement koo xamante ne dafa am immunité parlementaire tooñ la man procédure ngay def. bon immunité parlementaire mën nañ ni comme nañ koy waxee ci wolof pour pour définition bu gën a simple mooy lañuy ñuy wax mbalaanu kiiraay. c'est-à-dire bu ñu ko mën a wax euh, ba si nasaraan mooy ba protection boo xam ni tey day nekk ci kaw euh, bépp élu du peuple c'est-à-dire par exemple les députés wala les sénateurs donc loolu ba immunité boobu day permettre tey euh, ñoom kenn du leen mën a topp kenn du leen mën a topp c'est-à-dire xam irresponsabilité acte bi ñu wax si wàllu euh, seen wàllu liggéey si wàllu parlement bi wala si travaux wala même bu ñu génnee sax nga xam ni dañu doon wax noonu affaire bu député la seen wàllu liggéey la kenn mënu leen si topp. loolu nag ça ne veut pas dire euh, bokk député bi moom day def lu ko neex rek euh, ak ba fu mu ko neexee bu defee acte yoo xam ni comme ni ñu koy waxee acte détachable yi nga xam ne tey bokkul ça n'a rien à voir avec sa fonction bon de député bu boobaa mën nañ ko topp. mais bala ñu koy mën a topp nag il faut lu ñuy wax euh, xam immunité parlementaire boobu yow ñu lever ko procédure de lever de lever boobu parce que tey déjà constitution bi moo ko wax depuis article 61 am mu ne benn député duñ ko mën a topp si bépp si quelconque acte bu mu mën a poser dans la vie boo publique xam acte yooyu su ko posé donc bu ñu demee lu nga xam ne bokkul ak ça n'a rien ak euh, bu bu boobaa euh, mën nañ mettre en œuvre la procédure de mainlevée euh, bon de levée en tout cas de cette immunité loolu bu ñu koy def souvent c'est le bon le procureur général bon près de la cour d'appel moom mooy. bu adressé la demande via en tout cas le ministre ministre la justice Garbe Chou moom moo koy transmettre au bureau de l'Assemblée nationale bureau de l'Assemblée nationale lu ñu wax la conférence des président ñoom seen biir règlement intérieur assemblée nationale am na lu mu prévoir mettre en œuvre euh, boo mettre en œuvre en tout cas cette euh, levée de l'immunité bo parlementaire qui est possible en tout cas levée boobu tant que amul rek duñ mën a poursuivre le député par vote la c'est-à-dire tey euh, bureau assemblée nationale boobu bu ñu bu ñu accepté demande ministre ministre bon ministre de la justice garde des sceaux ñoom dañuy réunir en séance boo plénière après ñu voté ñu voté xool ndax ñoom en tout cas ki nga xam ne seen biir la bokk te ñu koy topp ay si yenn actes yoo xam ne bokk la dara acte euh, bu député bu députation bi donc donc ñoom dañuy dañuy xool ndax actes yooyu ndax mën nañ muri euh, li ñuy wax immunité wala de euh, lu ñuy wax mbalaanu kiiraay boobu bu xase ba dañ ñoom nañuy juger les bon le droit commun ñoom dañ leen jugé bokk ak ñi nga xam ni comme par exemple euh, les les avocats et les magistrats wala les ministres nga xam ni ñoom dañu am des tribunaux yoo xam ni des spéciaux yoo xam ñoom ñoo leen àtte levé boobu bu ñu ko xasee ba levé immunité boobu rek ñoom dañ leen di dem juger dans les tribunaux de droit commun te sa mandat bu jeexee xam xam ne immunité bi day jeex ak mandat bi bu boobaa yow bu fekkee député moo la tooñoon wala nga am en tout cas benn action boo war a def contre moom da koy def a ak maître Djibril euh, Wélé on ne parle jamais sans l'avis des spécialistes pour ñu ñuy gindi alors ci li ñu tuddee mbalaanuk euh, mbalaanuk. Euh, kiiraay voilà Pape Cheikh ni nga ko waxee noonu la parce que xam nga droit moom comme on se dit ni ñu koy waxee ça. ne s'interprète pas ça se dit moo tax ñu dem xooli koo xamante ne xam-xamam daf see màcc mhm. muy avocat yi ñu waxtaan si ak ñoom mhm. donc lu ñu mën a retenir Pape Cheikh mooy ni que li nga xamante ni mooy immunité parlementaire ça s'applique aux députés mhm. parce que parlementaire toujours ça renvoie au temps député donc am na yeneen façon immunité yu bëri nag par exemple euh, magistrat yi dañoo am seen immunité à part policiers yi am seen immunité euh, avocats yi am seen immunité yooyu yëpp ay xeetu immunité la mais immunité parlementaire soo ko déggee mooy pour député bi mooy li leen di protéger li leen di protéger parce que immunité parlementaire député yëpp ñoo ko am mm-hmm. député yëpp ñoo ko am mhm. donc boo nekkee député d'office tu as l'immunité parlementaire mhm. maintenant yow en tant que député mënoo si renoncer c'est un droit absolu boo xam ne da nga koy am mhm. à caractère permanent et perpétuel ah. donc yow boo nekkee député sax nga am problème ak nit nga ni damay euh, renoncer à mon immunité loolu mënul nekk il faudrait mu am commission boo xamante ne ñoom ñooy statuer xool ba xam dañ koy teggi wala duñ ko teggi maintenant ñoom ñu ngi tudd la conférence des présidents ñoom ñooy réunir suñu réunir ñu juger ni ko yow acte bi nga def immunité wala jaru ko ñu doog a xam bu jëlee décision nag ñoom ba ni dañ koy lever si la ñuy ñëw convoqué li nga xamante ni moom mooy assemblée nationale suñ ko convoqué ñi nga xamante ni ñoom euh, dañu d'accord pour ñu lever ko dañu am koo xam ne mooy porter seen parole mm-hmm. ñu daal di exposer fait yi mm-hmm. daal di wax lu tax ñoom ñu war ko mm-hmm. lever de ñi nga xamante ni tam d'accorduñu dafay am koo xamante ni tam mooy porter seen parole expliquer ni que moom par exemple fait bi nga xamante ni moom la défi député bi def wala action bi mu def jarul ñu lever immunité moom tam mu joxe argumentaire xam et après on va procéder au vote su ñu defee vote nag député yi fa nekk yëpp ñoom ñooy voté mmh. euh, su fekkee oui bi moo ko remporté député bi ñu lever li nga xamante ni mooy immunité bi bu fekkee non bi moo ko remporté quelle que soit action bi mu def mmh. ñu mën a lever immunité bi mmh. maintenant ce qu'il faut retenir aussi mooy ñaari terme ñoo engagé immunité parlementaire mooy irresponsabilité ak inviolabilité irresponsabilité c'est-à-dire tant que yow yaa ngi député Euh, dafa am benn irresponsabilité bu ñu lay jox par rapport ak euh, sa exercice su fonction maanaam lépp loo wax wala nga def ko wala nga nga adressé ko nit ci cadre sa liggéeyu député mm-hmm. maanaam nga nekk assemblée nationale di waxanteeg nit même bu fekkee danga ko euh, da nga def lii di diffamation wala nga sosal ko wala nga waxal ko loo xamante ni nekkul kenn mënu la ci topp loolu loolu loolu mooy irresponsabilité mm-hmm. parce que da nga porter euh, li nga xamante ni mooy parole peuple bi mm-hmm. donc action yi ngay def dañ koy jàppe ni député bi mais c'est pas la personne mm-hmm. maintenant inviolabilité bi nag moom mooy permettre yow ñu mën la poursuivre c'est-à-dire soo defee dara ñu jàpp ni que c'est des actions qui sont détachables de ta fonction de député maanaam loo xamante ni da nga ko def bu bokkul dara ak sa liggéey bu boobaa loolu mooy inviolabilité maintenant procédure bi ngay dañuy topp pour mën a lever li nga xamante ni moom mooy sa immunité euh, juste ma ajouter si nag ça veut pas dire que da nga am immunité que lu la neex def parce que immunité boobu si loolu laa bëggoon ñëw parce que Pape Cheikh ngi koy wax léegi naan euh, dama ko bëggoon am mais est-ce que du am ñu koy jàppee ne lu ma neex def ndax euh, procédure bi nga wax ça m'a l'air très mm-hmm. boo jotee nit le temps que ñu koy voté di woowante mm-hmm. réunir lu nit ci di voté oui ou non voilà loolu yëpp xaj na ci donc est-ce du am ñu koy jàppee ni def lu leen neex war na leen si mën fekk

nekk député bi xam nga def lu ko neex boobu ba tey comme ni ma ko waxee dafa am cadre bu ko tënk dans le cadre de ton seen ay moroomu député la wala entre ay confrères ñoo xamante ne ñu ngi liggéey maintenant lépp lu moo loo xamante ne da ko def mu détachable de ses fonctions de député comme ni ñu ko waxee nit ki bu ko poursuivre ba ñëpp yëg ko dinañ def li nga xamante ni mooy procédure xool da nga koy def wala du mais aussi rappelé ko comme ni ma ko waxee du loo xamante ni da dalay topp parce que bu fekkee danga nekk si euh, magistrat boo xam ne cinq années la bu cinq ans yi jeexee fekk tooñoon nga nit mm. moom mën na la poursuivre mm. bu fekkee acte bi waaw ba nga pare mu poursuivre la mm. euh, su fekkee ni que euh, acte bi nga bi mu defoon euh, kiiwul ñu ko prescrire ñu ko parce que dafa am durée boo xam tam si nga am pour porter plainte nit donc bu fekkee sur trois ans trois ans yi passé aussi dootoo ko mën a porter plainte je pense que am nañ ci quelques cas surtout par rapport ak par rapport ak député yi am na quelques députés yoo xam ne quand même on a eu à lever leur immunité donc voilà mhm. <laughs> leur immunité mhm. donc souvent da dégg sax ay député di kaas naan waruñu yomb trop waruñu ko yëkkati waruñu gaaw a yëkkati euh, malaanu ko kër laay waaw comme ni ma ko waxee xam nga ki si mujjee yëkkati bosam moom mooy Barthélémy moom mooy quatrième député de l'histoire du Sénégal boo xamante ni levé immunité parlementaire mm. mais comme ni nga ko waxee chaque fois dafay am camp boo xamante ni pour d'autres ils sont mais comme on est en démocratie c'est le vote c'est irrévocable kenn mënatu ko changer mais c'est c'est juste pour les faits yi nga def bu ñu ko lever c'est pas parce que dañ ko lever képp koo tooñoon day ñëw porter la plainte c'est par rapport à un un bien déterminé bu ñu ko lever par rapport à tel fait keneen koo defoon leneen tam day xaar ba ñu lever sa immunité par rapport à son fait ñu doog ko si mën juger voilà intéressant merci en tout cas Maymouna Gueye Bambalo